jëf daan yi ñu ko daan ci coow li doxoon diggam ak Adji moo fa jaar ci jamono jooje Les mi ngi ñuy xibaar ne ca mairie bu Ndakaaru lëngoo ba woon ci diggante taxaw bu ñoom Khalifa Ababacar Sall ak parti Pastef bu ñoom Ousmane Sonko lëngoo ba dakk na ànd bi yem na fa bi ñuy samp démb bureau municipal mairie bu Ndakaaru journal bi nee nañu Abbas Fall bu parti Pastef mi newoon première action mairie bu Ndakaaru dañu ko tëbal ndax mbiri parité candidat ñu fal premier adjoint bu mairie Dakar journal laay fa bind ci xët mu njëkk ni bëjoo ak réeroo gi ci diggante Khalifa Sall ak Ousmane Sonko mu di diel entre Pastef taxawu mbir yi law nañu ba yegg ca mairie bu Dakar bés bi le jour di ko dëggal ci xët njëkk di ñu xamal ne dogoo ga ma wéy vox populi mel ne ku naan ñu plus garaaw féewaloo moo am ci biir opposition bi ndax kii di Khalifa Ababacar Sall moom ak waa këram yi di waa taxaw di mooy ni ñu taxawalee bureau municipal bu mairie bu Dakar ndax nee nañ waaye yeewi dañoo jàppone waa taxaw bu xalifa dañu ciy dugal ay wor jëlee gi ñu jëlee Abbas Fall ci siisu première adjoint mairie bu Dakar lise ko nee nañu dafa yokk ci xarmi kara waaye du loolee rek moo tax waaye yeewi yeewi xalifa Ababacar Sall ne dem gi mu demoon bokk ci dialogue national bi ci la gis nañu ne xalifa Sall ak waa këram yi guddi yu ñu toll jege nañu lool waa Benno Bokk Yaakaar le témoigne ne ko te muy lu wér waa kër di waa taxaw ak waa kër Macky Sall yi waa Benno Bokk Yaakaar jamono ji dañoo mel ni mburóokum soow nañu dafa feeñ sax ca mairie bu ndakaaru ci bureau bi yees ba ñu fa samp démb yu benno bokk yaakaar yu bokkandoo sóobandoo ci élection présidentielle yi 2024 ndax ñi xëccoo du Mahammed Boun Abdallah Dionne du Abdoulaye Daouda Diallo du Amadou Mame Diop te du Amadou Ba moom Dramé député président conseil départemental bu Nioro bokk ci parti socialiste mi ngi leeral ci xët mu njëkku tribune ci biir parti socialiste ña fa nekk 90 seen choix Amadou Ba la honorable député njiital parti socialiste dañoo réeroo ci choix candidat Benno Bokk Yaakaar Ali Mané na ci yérekaay bi loolee amul ku ko wax wax ngay sos wax nga waxi yàqkat parti socialiste mooy Aminata Mbengue Ndiaye te man tey laa gën a dogu nekk ci wetam topp ci ginnaawam yaakaar di tànn doon ko mën a saafara tawate askan wi Abdoulaye Daouda Diallo président conseil économique social ak environnemental bokk ci candidat yi ñuy dégg ci candidature Benno Bokk Yaakaar mi ngi ci xët mu njëkk journal Le Mandat ñi bokk ci APR te fare ci diwaanu Ndioum yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne nee nañu seen bëgg-bëgg mooy Abdoulaye Daouda Diallo doon candidat bu Benno Bokk Yaakaar ndax nee nañu ba muy miti ñuy dàq Macky Sall ci biir Parti démocratique Sénégal ak di ko indil ay ñol-ñol Abdoulaye Daouda Diallo moo takkoonu fitam jiital ngorom dem ànd ji ak moom ngir jëmmal yéene président Macky Sall gi jëm ci suqali diwaanu Tambacounda ba def ko pôle de développement économique ak social Tribune nee nañu moo waral président conseil départementalu dëkk ba di Mamadou kase dajale woon maire yi dëkk ba ngir ñu jëmbat yitte yi ci l'essentiel maanaam lii farata fot fot taxul mbaam tàggoo ki noppam teg loxo gi ñuy teg loxo farandooy Ousmane Sonko source waa ne nañu mi ngi wéy ba léegi ndax démb rek am na ñaar fukki patriote ak ñett ñu yóbbu ca kaso ba moom yéene kay bi di source waa mi ngi ñuy wax it ne ba démb rek bu ñu kalkine militant Pastef yi ñu yóbbu ca kaso ba ëpp nañu 800 personnes di juróom-ñetti nit nit ñi demoon songi ambassade du Sénégal ba ca Canada caxat-caxate ko yàqate ko Le Quotidien nee nañu bu ñu moytuwul tama du leen ëppi buum ndax ñi def loole ñi ngi leen di wër wër gu mit si am na lu mat fukk ak juróom ci ñoom ñoo xam ne xàmmee nañu leen xàmmee seeni kanam li ñu xamagul mooy fan la ñu nekk direct news mel ne ku naan ñu dafay yàgg rek waaye dinañu feeñ ndax unité des enquêtes criminelles bu police bu Ottawa dugg na ci ñu génn fa dellu si ci réew mi jël soleil national mi xëy dugg ci marché bi ngir waxtaani ndugg mu seer mi ci bi yëral xët mu njëkk yéenekaay bi lujum yi ak ni ñu seere jamono ji soleil national ñuy wax ne dafa feeñ bu baax baax ci poos yi borom kër yi soble si waral coow lek mbambuli lii quotidien xëy na da ca laaj ab laaj boo xam ne leer na ma ne njóobeen ni ak séeréer yi duñu nangu laaj bi jëm kaw li journal bi di laaj moo di est-ce que duñu jàpp ci yàlla génne soble si ci li ñuy lekk abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir saa su ne ay xibaar yu wér mi ak